ci ànd ak nattambaay dal leen ak jàmm avion moo gën a seer ba kenn doomu aadama loolu la l'observateur gis yéenekaay bi daal di dellu si waat ci avion Sénégal Air bi daal réer mër ndekete yoo pilote bu say dafa daal daw jël avion am koy yóbbu ba Malabo ginnaaw bu mu mbëkkee volu HS 125 bi moo ne ci wàllum dawal avion dañoo ne bu accident amee ci jaww ji avion bi dafa war a daal di atterrir ci aéroport bi ko gën a jege kon mu di Cap Skirring wala Bamako bi daal di daw dem ba ca Malabo wute loolu ak Cotonou ba nga xamante ni foofu la waroon daal di taxaw loolee lépp rek bañ l'enquête bi daal di koy sonal enquête boobee ca boppam sax mu ngay wéy ba léegi teg ci daal dinañu amal ay perquisition ci ANACIM bu ñu sukkandikoo ci populaire directeur général bu ANACIM nag nee na yi jamono ji xel xalaatul sax ñu koy daal di dakkal enquêteur yu bureau d'enquête et d'analyse ya nekk ci réewum France nag ñu ne Mbacké nekk ab botaniste maanaam di yëngatu ci wàllum garab ak lu ni mel mi ngi tolloon ci fanweeru at ak lu topp moom nag ñu ne dafa mën ay jafe-jafe ci wàllum sibiru moom moo ko sonal huit ba taxoon kon ñu koy évacuer ñu des ba léegi ci accident boobu ak le quotidien sale pour Sénégal Air ñu ne nag recherche yi daal dinañ koy ajandi jamono jile ndax temps bi nga xamante ni taxu koo demee noonu jamono ji amatuñu sax yaakaar gis kuy dund comme Sénégal nag dafa tëlee waa France daal di ñëw wàllu si leen njabooti ñooñee daal di réer nekk ci ab njaxle ba léegi lii di le figaro point fr équipe bu France nag bi nga xam ne moo fi nar a ñëw dina ci bokk ñetti enquêteur benn conseiller technique ñu jàll ci àtteb Hissène Habré ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy layool te ñu daal leen di tànn nag ñoom ñu ngi def li ñu nemmeekoo sax ni Hissène Habré bëggu leen daal teg ci ay gët témoin clé bi di Faustin Facho Balam moom nag nee na Hissène Habré lu ji njaak moom mooy njaak rawatina wàllum guerre bi nga xam kenn du dégg baatam bu ñu sukkandikoo ci expert bi di Yaxara Gassama Diop moom mi tudd directeur bu prison bu Cap Manuel ki nekkoon njiitu réew bu Tchad moom nag ñu ne nekkul niñ koy waxee noonu la mel nekkul nit ku bon waaw wakaam xam nañ ci dara waaye soxna soosee nag di wax ni wàllu wér gi yaramam amul benn jafe-jafe enquête li mu gis ca salle d'audience ba mooy ay partie civile mer ci rapport boobu François Serre moom tamit mer bay futt la daal di def lu tax ñu tere demee foofee Salah Habré moom ne amul sax demal ma ñëw ay politiciens corrompus ñoom ñoo nekk ci ginnaaw loolee lépp moom mi nga xamante ni moom mooy rakk ci seen Habré daal dinay amal benn interview ci Sud Quotidien politicien yooyu kon dañ leen a xëpp xaalis moo tax ñuy def seen kéem kattan ngir ñu daal di tëj kii di Hissène Habré moom sax day nee na amul yaakaar benn yoon ni magam gii dina génn ci kasoom bi nga xamante ni foofu la nekk ñu wax ci wàllum politique ak grand place ak las Macky Sall mi ngi waajal Pikine samedi gile waa APR nag taxaw temb bañ nga daloon seen njiit ca université daal di amaat foofee ca banlieue bu ndakaaru dafa fas yéene daal di tëj lii di vacances citoyennes Babacar Mbaye Ngaraaf bu Alliance Sauver le Sénégal ne Youssou Ndour ca boppam la bëggul sax daal di gis fële ca banlieue ba ak orchestre am rafetul ñii di paccax-paccaxi ci ndox mi moom mu daal di ñëw ak ay sabaram ñu nekk foofee di fecc loolu nee na àndu ca benn yoon Idrissa Seck moom nag syndicaliste yi ca boppam la daal di indi ci booram ginnaaw ñaari grand cadre yi mu dajal jamono ji nag kisam si lay daal di waxtaanal faatu ca Paris am na kenn koo xam ne fekkee na mbir mi nee na ab policier moom moo daal di ñëw fekk ko ca baar ba ngir mën koo daal di nag dafa daal jël loxoom teg ko ca put ba naka noonu la ko daal di ba mu jaaree faatu ba mu egg ñu ne ca commissariat ba daanaka faatu woon na ba noppi sax benn waxtu après loolu la ñu daal di bi moo ne nag yoon bu France dafa mel ni dafa ànd ak yaafuus bu méttee métti ci mbir moomee lijjantiwu ko boobu ba léegi laal dinañ leen ndàmp Le Soleil moo ñu xamal lu ni mel ca sport Cameroun la li mu bëgg mooy gayndey Sénégal yi fukki fan ci weeru ñu daal di jouer ab benn match amical stade moo ko wax ci sunu làmb nag Gaston Mbengue du wax luy tàkk te du fay nee na moom li muy rëccu mooy li mu daal di indiwaat Tyson ci arène bi ñaari combat yi mu ko daal di organiser tax na ba lu toll ci téeméer ak juróom fukk ci ay millions daal koy ñàkk nee jamono ji sax ñaari a ngi ci biti nekkatul ci làmb ji de génn na ci ba set wecc teg ci banque yi mi ngi leen amel lu toll kay vacances ak l'observateur loolu la ñuy jeexalee soxna yi nga xam ne dañ leen di jël di leen yóbbu Arabie Saoudite ci misaal rek amoon na benn xale bu jigéen bu toll ci ñaar fukki at ak ñeent bàyyeekoo Tiwaawan moom nag mu doon nettali ni balaa ngaa dem sax di nga joxe lu toll ci deux cent soixante quinze mille francs te boo demee nag lañ lay wax ak lañ fay fekk du benn dañ lay toroxal ba nga ne tot wala liñ lay def loo mooy muut